li nga xamante ne moom mooy la voix du tey ñu nekk ci aljuma euh, dekk dernier numéro semaine bi euh, ki mu doon moom mooy Mamadou Moustapha Diagne nekk directeur formation communication bu ministère éducation nationale waaye itam jiite coalition boobee nga xamante ne ni Mouhamed fa la ñuy dugg ndaxte mesdames messieurs euh, tardewu leen dara bu ngeen ñu rejoindre yéen a ngi ci Equivox TV votre télévision à portée de ngeen mën ñu nag suivre suñu émission en direct ci réseaux dem rek su ngeen defee Equivox TV di ngeen ñu mën a seetaan mais ñu dugg ci pàcc Euh, gis nañu calendrier électoral bi dialogue mhm. beek jëm ci wàllu politique yi di soxal na ko wàllu kujje geek ñi fare ci nguur gi mhm. alors euh, foofu laa lay bàyyi rek nga dalal rek mhm, d'accord alors euh, ba tey ci wàllu politique bi gis nañu moo xam ni soxal calendrier électoral bi ñi di front de résistance nationale def nañ seen point de presse semaine bi wax ni kii dañu bëggoon ñoom élection locale yi ñu amal ko ci 2021 bu ko defee législative yi ñu amal ko 2022 et que progressivement euh, présidentielle mun a am en 2024 ñu mun a respecter li nga xam ne moo di calendrier électoral bi fi coow lu tollu fan yi fan la su lan mooy lan mooy lan mooy euh, sabab bi li ñu waroon di ko def opposition bi mooy démissionner seen poste conseil ak maire ak président conseil départemental déet non il faut être conséquent. Mm-hmm. ñoom euh, opposition bi booy xeex benn mbir yow ne nga il faut élection yi mu am 2021 nee nga affaire bi ce n'est plus légal ce n'est plus légitime mais da ngay poser mm-hmm. ñoom ñu ngi ci troisième mandat ñu nekk maire ak conseil. ñu ci te nekk ci opposition bi te nekk ci opposition bi démissionné wuñ de tant que wootuñu élection yi du te duñ bàyyi il faut être sérieux te lii ñu ngi koy wax. li ñu koy wax nii c'est parce que avènement yi fi amoon moo tax ñu koy wax ah. mais avant wax du ko ñu ngi ci dialogue national ba toog di waxtaan lan moo fi changé mbir boo koy xeex te li ça les Sénégalais hmm. mbir boo koy xeex c'est-à-dire da nga da nga ci da nga ci da nga ci da nga ci sérieux on n'a pas une hmm. toog sa mandat jeex pendant depuis deux mille dix-neuf nga toog on est en deux mille vingt nga naan élection nañ ko organiser 2021 bu bëggoon ñu organiser kon 2019 ngay démissionné ñu 2019 nañ ko organiser. kon opposition bi dañuy tappale. mooy tey ay tappale la et puis entre décembre 2021 ak février 2022 où la différence ça il faut l'arrêter gis nga bu ñu loolu c'est pas les priorités te Sénégal jàpp dëgg-dëgg li ñu dugal nii ci démocratie mooy daf ñuy appauvrir ndax boo xoolee 2012 wat nañ ñaari yoon. 2014 ñu woote benn yoon. 2016 2016 ñu wote. 2017 ñu woote wote. 2019 ñu wote. six élections en en sept ans. looloo tax nee nañ ñu joxoñ leen baaraam de. dafa naa rek six élections en sept kooku ban réew mu mu néew doole moo ko attan. waaw li mu laaj. ah loolu ci nguuru président Macky Sall la xewee. non en fait ko bëgg noonu. à qui non kii ak fi jiitoog ñëpp rek état beeg opposition parce que man dama xamul lan ma fi jar toutes et qu'est-ce que en quoi ça ça le pays mais nee nañ da ngeen am problème mu respect calendrier. républicain non loolu moom bu ñu ko wax Abdoulaye Wade dàq na fi élection ba tey Abdou Diouf dàq na fi élection ba tey il faut pas qu'on que le Sénégal là a commencé en 2012. ndax da ngeen bëgg a randal yu 2012. non leen tamit. non amul xam nga si nga. tiit tiitaange amu ci. Mhm. parce que ñoom bi ñu def élection yi yëpp ñoo leen gagné. waaw hmm. ah, élection yëpp mu leen gagné. mais nee nañ Dakar moom mënu leen fa teg tànk. mais Dakar waaw mais on verra ça après parce que aussi on ne peut pas gagner partout loolu aussi c'est am nga fooy gagné am foofu gagné loolu tamit c'est c'est normal on n'a jamais gagné Touba c'est normal c'est pas un fief. on n'a jamais gagné Thiès. c'est pas notre fief. ndox du gën a doy waar ci 2024 bi ñu dëgmal bi ni mu taxawee nii. Mm-hmm. xam nga pour le moment avant 2024 parce que élection yii di ñëw locales yi ak législatives yi ñoom ñuy déterminer 2024. Mm. oui élection résultats yi génn foofu. Mm. mooy configure deux mille de mille vingt quatre. kon yéen ragalu leen ñàkk ko moo xam locales yi ak législatives yi. mais pourquoi ñu koy ñàkk. Hmm. parce que opposition bi li ñu fasoon moo di fi mu ne nii yéen euh, maanaam réew mi sax ñoo doyal ci nguurum président Macky waaw loolu lañ doon wax en 2019 c'était le même discours. nee nañ amatu leen doole. que que Macky Sall xamul lan dafa war a jóge et ñu dem mu gagne leen 58 pour cent après bu ñu paree immédiatement ku ñu ñu jiñ ko fichier bi. waaw nee nañ aussi bi bu nekkee opposition bi. ñun ñun bi ñu nekkee opposition fichier bi lañ ko doon <laughs> fichier bi deful kenn dara waaw loolu la rek li fichier la deful kenn dara. <laughs> mais ñoom fichier bi sax. tax xam nga wax daal gis nga fichier bi xamul dafa ma ko. mën nga mën naa la yow. daa mel ni ñoom xamante nañ seen. dama xool ji <laughs> naa la jël. utal la utal la carte d'identité carte d'électeur. Uh-huh. ah jour ba ñëw may jox la xaalis ah, jiital la ba ca bañ gàcce ba. Hmm. boo duggee nga watal keneen ku man. ah loolu mën naa nekk. depuis affaire isoloir ba léegi. c'est-à-dire que forcé nit ñi woote gu ñu bëgg mënut la nekk. mënut la nekk waaw boo nekkoon sax indil ma indil ma kii mu indil la ko day jël ñaar ñett ñaar ñett yi nga bëgg yëpp mu indil la ko wan na la yow la wootee euh, euh, il faut l'arrêter. ci <laughs> noonu euh, ñoom nee nañu contexte bi fi mu toll nii vu li fi xewoon ak coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr yooyu noonu moo tax ngeen dem ba tiit ndaxte élection yi ci contexte bi ñu nekk. Mhm. nee nañu yéen loolu ngeen bëggul maam am loolu yow. waaw xam nga daaw. daaw boo ko seetee réew mi taroon nañu leneen lu ay élection est-ce que doo ngeen ko doon bëgg. non non non non Covid bi moom ñëpp la tiitaloon. waaw commencement tëj nañ suñu xam nga école bu ñu tëjee. moom situation bi na. et puis li baaxul. du ñu mun a am temps pour def élection. et puis opposition ci boppam ñoo wax ñoo ñoo réclamé ñaari choses. évaluation du processus électoral boo ko tegee yaa dax élection. te dañ ko teg pour pour rester dans le poste de maire là xam nga léegi nag xam nañ comme affaire bi jeex na bon yaakaar nañu aussi ak événement bi bon xëy na nguur gi xaw naa yëngatu léegi c'est c'est le bon moment pour réclamer des élections mais mais justement ngi koy wax maire yow fan ngay militer ndax da nga bëgg a nekk maire. bien sûr. maire fan Thiès. Ah non man. wala Ndakaaru. non Thiès. Hmm. ah Thiès. pare nga pour samp sa ndënd. mais élection passée demoon nañu. no bii nii laa wax. ndax yow yow en personne. xoolal loolu sax waxuma sax Thiès. mais Sénégal déclaré nga sa candidat Sénégal gépp dañu fi sapp ay candidat parce que loolu moom parce que pour ñun euh, élection locale ay nawetaan la mhm. parti politique day dem élection locale mhm. te nous irons aux élections locales qu'il pleuve ou qu'il neige pare nañu kon daal maire d'ailleurs sax man j'avais mhm. dit en deux mille en euh, deux mille dix neuf deux mille vingt wax naa ne léegi nañ teg ay délégation spéciale mais yeeg yëpp dañ leen dàq ñu teg ay délégation spéciale comme ça comme sa ñu heure bu ñu jàppee élection yi baax na mu gën a gaaw opposition bi kay na réclamer ay délégation spéciale du ko réclamer mukk lu tax ah waaw parce que euh, yor nañu ay budget di ko gérer te ci lañu préparé élection yi. comment mu tunkaay xaalis ah waaw mais mais bien sûr xam nga tamit Sénégal fii euh, xam nga luy drame bi xoolal ni politique fii yëpp ñu fi gën a siiw kenn amu ci métier. kenn amu ci métier boo nekkul maire nekkoo. ministre nekkoo député cest à boo ci nekkatul sa kër ngay toog nekk consultant la ñu jënd sa diplôme. jamono ay consultant la luy consultant consultant en quoi tu as consulté kii et quoi man tey jii su nguur gi daan woon ma yaa sama kare dem ca école ba dem jàngale ji parce que man ci classe yi laa génne. jàngalekat nguur gi jàngalekat la te ci laay dee. léegi nag dëgg li ma xoolal bu baax li ma la wax ci mais loolu comme ay jeunes <laughs> ñi ngeen topp yëpp xool leen. léegi yow ñun moom taxuñu kenn non boo boo non en fait ñi ngeen ñi ngeen ñi ngeen ñi ngeen ñi ngeen dafa leen ñoom directeur kenn defalul kenn laaj ko ci liggéey li ñuy liggéey ok à nga xam ni mi ngi woon Petrosen Macky Sall mi ngi woon Petrosen ñi ci des ñëpp mënuñu laa wax fii la ana ne ko ci benn cabinet lañ lay wax mais yéen wax nañ leen ko tamit yéen yéen ñi nekk ci nguur gi journaliste la journaliste wala jàngalekat nga <laughs> alors ñuy euh, clashé léegi non seen benn nataal bu affaire moo di euh, Thérèse Faye Diouf hmm. dafa génn fan yi ci semaine bi rek wax benn wax boo xamante ni mu ngi gën a xambaat taal bi hmm. maanaam coow troisième mandat bi boo xam ne président Macky Sall bu bëggaatoon troisième mandat sax ñu jox ko ko kon loolu ndax day day firndeel ni ba tey ni yéen pare gu leen jóge ci nguur gi non wax xam nga waxu politique politique ay xam nga politique souvent ay contexte laaj yooyu parce que troisième mandat pour ko mais président na ko non mais kenn la ko wax le président moom non bàyyi ma expliqué la rek dañoo la dañoo la jël une fat place ñëpp toute la grande coalition bañ mm-hmm. mm-hmm. euh, dama bëggoon mm-hmm. affaire troisième mandat daal mu teg ko ci suuf ngeen may ma ko mm-hmm. buñ ci waxati parce que suñ ko toppee du sotti ndax fi la bëgg a yi bëgg a gaay jaar bi fi ñu bëgg a jaar pour paralyser réew mi ñun ñëpp ñu may ko d' accord defal naa ñu koy ñu koy wax yëpp ne fa woon toog mm. man su ma d' accord woon ci loolu dama jël ah président d' accord ma ci dama ciy wax ñoo ko may pourquoi yu génnaat nag di wax kii léegi ku xam ni xam nga bu ñu la war def dàq nii poste da ko koy yëg. Mhm. oui da nga koy yëg. Hmm. après rek oui oui da nga avant waaye oui dama ne ñu ko bu wax tibb yóbbaale quoi. Hmm. mooy troisième mandat parce que dama am trois la troisième mandat ak gestion société bi jotee. kan lañu jotee. kon kay directeur boo nekkee fenn 6 ans. Hmm. boo nekkee fenn 6 ans nekk fa 7 ans am sa nawle boo xamante ne bii mën a jiit ci Macky Sall amul amul amul poste te xëy na sa gën laa compétent waaw bu buñ la fi ñëwee teg ko fa mais jaarul na. yow d'accord nga ci troisième mandat bi li Thérèse Faye wax. maanaam comme que yow kay directeur moom. non dama lay wax dama yaa ngi liggéey liggéey bu rafet kon kay war nga ci mën a àddu. gis nga non c'est-à-dire que man duma dama am kàddu. su ma ci bëggoon a wax suñu gisee ah, président Macky Sall dinaa président kat léegi dinaa ci wax. mais da dul ngor président toog wax benn mbir yéen ñun ñëpp ñu nekk fa ne ko may leen la ba pare jénn di ko di ko di ko wax man président Macky Sall ni euh, wax ma sax kii man ku dul yàlla ku dul yàlla ku dul seen position dafa ba ma rek ku dul yàlla ragaluma la mais nag dañuy joxante cër mhm. te président aussi daf ñu jox cër forcé wuñu ko ah force loolu forcé wuñu ko Hmm, ñun dañoo foogoon nañ ko teg. ne ku wax rek non non non non forcé wuñu ko forcé wuñu ko dañ ciy waxtaan ba jubóo ci. maintenant c'est pas le aussi un état un gouvernement ne doit pas accepter que ñu koy imprimer euh, donc que opposition di ko di ko di ko di ko imposer un thème de communication ci loo xam ne ñëwagul local yi ñëwagul législative yi ñëwagul. ñi koy wax ñu yàlla yàlla nañu fekk yàlla ñu fekkal bakkan sax kon lañu ñu rey nga président tamit moom dafa am benn bu bu bu xaw a fulu tamit. Mm-hmm. parce que daf fi toogoon wax ni fii kenn daaw fi doot fi ëppalati mm-hmm. ñaari mandat mm-hmm. ba mu yàgg mu ni tamit fii ci euh, defe na 31 décembre bu lay passé. bi ko suñu naataangooy laajee mu ni du wax waaw du wax déet. xam nga dafa wax du ma def troisième mandat. dañu ne ko non non non dangay dangay dangay bëlëfe nangam nangam nangam. xam nañ ko njëkk naa wax loolu da ngay la fay nangam nangam war nga waxoon nga fi di nangam woote defoo ko et cetera et cetera wax waxeen ah bu ñu ko laajaatee waxam be comme waxatee wax fula fulaaluñ ko mun la nii wii wa dem liggéey dox doxi soxlaam la déedéet mais mais mënul woon a euh, nekk ku court clair concis rek ne déedéet dama ni wala a waaw non dama ni dëkk da clair concis ko non non la nga defoon ca bu def ba ngay def da ne woon doo doo kii dangay wàññi mandat bi te président man ba mu ba mu waxee dafa wàññee mandat man damaa lànk ne ko mandat bi moom moo ko ba di ko wax wax ba da ngay wàññi. dañ ko jëlee sept ans indi ko. ah non moi moi j'ai dit non. mais est-ce que njeexitalu n'a ah. xam nga ñun dañuy toppandoo États-Unis États-Unis c'est 57 États c'est plus de 300 millions c'est c'est 53 États c'est c'est 52 États c'est plus c'est également 1776 la judd 18e siècle. mais kan mooy toppandoo. bàyyi ma expliqué la rek. xam nga fi loolu foofu Sénégal ñu ne wuy États-Unis France nangam France 1789 la judd République française 1789. Mhm. Mhm. ñu ngi di 1960 jaar ci esclavage jaar ci colonisation jaar ci lépp kay bëgg a toppandoo démocratie yooyu mais du sotti mën nañoo dem ñetti fan yu ne ñu organiser élection bëgg a développer bëgg a émerger duñu dem fenn. mais dama la ko wax. Uh-huh. xam nga mandat cinq ans baaxul. ndax baaxul man dama ko combattre. dafa am un pays à gérer am un pays à construire. xam nga yow. mais ci juróomi at bàyyi ma expliqué non bàyyi ma rek ki nga xamante ne bii dafa tabax këram ba pare hmm? tabax këram ba pare ni euh, mu jiite këram bokkul ak ki nga xamante ne bii sawa yi dafa fondement teg ñaari néeg. di waaj a ñëw pour tabax. non bokkul. Afrique fii dañoo soxla nañu ay mandat yu yu xaw a gudd parce que c'est des pays à construire nga boo boo boo fi nekkee ne way ma jox la ma réew bi la joxee réew mi bala ngaa def taf benn programme ñaari at dem. foofu laa bëgg a waxee kon yow d'accord ci limitation mandat. si pour man deux mandats baax na man li ma d'accord mooy deux mandats de sept ans bis bu Sénégal nag demee ci émergence ak développement su boobaa ñu def ay cinq ans bu ñu neexee ñu def quatre ans comme États-Unis parce que Belgique toog na fi deux ans amul gouvernement te doon dox mais réew moom Belgique du Sénégal. waaw bu ñu ko defee sept ans duñ ko yokkaat ndax jox nañ jox nañ fi gis nañ ñu fi nekk ci pouvoir pendant quarante ans te defuñu benn réalisation tamit. non loolu mënut la am. Hmm. loolu la am parce que gis ngeen président Macky Sall li mu fi def xam nga tey jii boo jógee eh, boo jugee fii dakaar ah da ngay dem Kaolack ci tali. jógee Kaolack mu ngi bàyyi ma non bàyyi ma expliqué eh, non bàyyi ma ma lay non si si si dalee nag doy moom eh, bàyyi bàyyi ma jógee dafa naa nag jógee jógee Kaolack dem eh, ba Kër Ayib mhm. ci dale dugg Gambie pont gars yi dafa nag Gambie une semaine lañu fa daan ñu daan def mhm. léegi pont cinq minutes dugg Casamance gars yi ne nañ projet yu ngeen yeggali la rek initiateur bi moo fi jóge ngeen weesu ngeen ñëw waaw mi mel comme comme comme mën nga wax aussi Abdoulaye Wade yu mu yegg la xam nga fii dafa am yooyu yeggale réew mm-hmm. nga am yooyu yeggale am yooyu initié mais ci wàllu réalisation moom dëgg ko loolu képp kuy tukki xam nga gars yi duñu tukki mm-hmm. su ma nee kunkaane tey man dama naan jaar tali veli ngaye kunkaane waa Dakar xamuñu ko man jaar naa fa xaw a dee léegi boo fa jaayee vingt minutes nga nga nga nga yegg nga yegg yaa réew mi yëpp nag noo noo noonu la demee sans compter PUDC Puma vraiment affaire réalisation moom président Macky Sall gay waaw yaa ngi wax réalisation terre bi ndax moom wax ngeen ñu ne dina daw. Mhm. xanaa bi la yoon moom dina daw. ah man su ma sañoon su ma sañoon su ma sañoon bañ a jox date. waaw su ma sañoon. ah date yi ngeen di jox bëri na de. man daal su ma daal ñu bañ a joxee ci eh, date parce que nag wax dëgg yàlla saa bu ñu ko waxee. Mhm. mu rànd kon dañ jën ci affaire affaire affaire date te. gaawal liggéey bi mu gaaw bi la damay dugg ci wàllu ndaxte ñu ngi may signaler ne ñu ngi ci cappaandawu émission bi puisque ñu ngi ci politique ba tey Mouhamed xam naa balaa may kii mhm. bon amoon na man bëgg naa dugg ci wàllu justice bi mhm. euh, laal ñaari pàcc yoo xamante ne ni damay gis ne da nga am envie di ci waxtaan euh, lu soxal wàllu Ousmane Sonko ak lu soxal wàllu euh, Karim Meïssa Wade ak Khalifa mhm. Ababacar Sall d'abord Khalifa Ababacar Sall ak Karim ndax mën nañoo xaarandi ngeen féexal leen bañ mën a bokk ci jongante yi comme que nee ngeen yéen ay républicain ngeen beneen bi mooy affaire Ousmane Sonko aji Adji Sarr euh, sa jàngat lañ ci bëgg am fi mu toll nii ndax coow li apaisé na lépp dal na mais ba tey mbir mi mu ngi ci loxo yoon euh, ñaari yooyu bëggoon nañ ci xam sa xam ñun suñu parti Synergie républicaine dañ dul nangu koo xam ni dañ la jàpp ci détournement de deniers publics de la République. Hmm. au nom de quoi on devrait amnistier dafay loi d'amnistie pour Karim ak Khalifa Sall au nom de quoi li ñu ci mënoon def def nañ ko pour man grâce bi. doy na Khalifa du ko bees. téetu leen. non non xam nga du ko du ko bees. 40 yi ngay wax. yi kaa tax RIP. nekk na fi maire oui nekkoon na maire Grand nekk na fi ay ministre mhm. jiite jiite jiite jeunesse socialiste lépp lu ñu fekk. mais doole ji mu am léegi. bu ñu daan wulli fii kii dóor ay liif ak yooyu xam nañu ne moo accord yaa ngi dégg ensuite 30 euh, millions ñu la koy jox ngay def sa poche chaque weer. pendant des années vraiment c' est ça kooku détournement deniers publics la euh, Karim Wade c' est pire. Hmm. parce que Karim mais il est question de 138 milliards 138 milliards te nag du ay xam nga nit ñi boo waxee wax politique du ay politique boo demee compte Monaco bi fekk dañ fa 2 milliards alors que 99 milliards moo fa transité ma ngi lu leer laa lay wax am naa ay armes yoo xam ni dañ ko waroon euh, jënd ci océan génne xaalis jox ko armes yooyu kenn musu ko gis am na ay villa présidentielle douze milliards génne xaalis villa yi kenn musu ko gis ay bateau yoo xamante ne bii sept cent millions lañ ko war a loué loué ko ay milliards donc c'est mais c'est extraordinaire Ousmane Sonko xam nga Ousmane je pense que moom bon xawaruma sax di ci wax parce que on ne tire pas sur une ambulance hmm, parce que man li ko li ko li ko dal nii sax wax dëgg yàlla man yéene ko ndax yéene wu ma ko mooy lu mu souffrir souffrir souffrir ay soxnaam ay mbokkam gën ko souffrir. Mm-hmm. ndax gàcce penc baaxul ci gor. kooku kenn mënu ko ñaanale kenn. waaw ah, nee na yéen a ko complété que mu leen deful dara. waaw waaw bu ko mën a prouver bu demee. tribunal bon bu demee tribunal bon bu demee tribunal nag mën na prouver complot bi mais li wër te mooy xam naa ne man de président Macky Sall yónnu ma ma ànd ak Dioni. Euh, mm-hmm. ñu dem jàppoo ko. ñu dem jàppoo ko suñuy ponkal jàppoo sa waay yóbbu ko ba ca kii ba pour ñu maase ko. mais yónni ngeen ñeneen ñu ko. non defal ndànk defal ndànk non defal nank rek. encore que état bi porté wu ko plainte. Mm-hmm. état bi porté wu ko plainte. mais loxo état bi mu ngi ci. waaw non kooku sa responsabilité la. mais daal moom responsabilité am ay waxam la. waaw non wax sa wax waaw waaw mais daal bu ko neexee. <laughs> c'est ça l'idée de défense. nangul nañ ko non nangul nañ ko ko moom nangul nañ ko defal propre moom nangul nangul nañ ko ko ak lu mën a koom tout ça man de nangul naa ko mais li ma bëgg daal mooy bu demee tribunal yooyu yëpp mu prouvé ko fekk Sénégal yi aussi du ñu ay dof ba leen nit wax rek ñu ñu gëm ko mais li wér daal mooy am na loo xamante ni bu fekkente ni bi da nga nekk euh, homme public da nga koy moytu. man waxuma sax li mu ci wax yépp mais man ba ma ko njëkkee yëg defu naa ni demul foofu parce que comme moom dafa am ay relents religieux quand même ku dul nuyu jigéen mun ma imaginer ngay dem foofu ci bilib bi mel noonu. waaw nee na oustaz moo ko digal ni ko mun na maase wu ndax euh, ko fekk góor amu fa te wér-gu-yaram moo ko laaj. gis nga ab jullit ab jullit lépp lay warante xam nga ni baaxul. Hmm. nga jullit nga lu baax ak lu bon. c'est naturel ci nit cest dire que bu nee lu bon rek am na conscience bu lay wax ne ah lii baaxul. d'accord jarul sax nga laajte mais dama ni mm, kii bu ko yooyu yëpp bu ko ne man daal dama ñu ñu ñu dese ñu mu dese naa dama lay jox nga poser question mais man en attendant amoon naa ñaari question yoo xamante ne ni bon en 30 secondes rek puisque ay question d'actualité la. Euh, wax xaw nañ ko junj sànq mooy am na benn coow boo xam mu ngi fi commencé jug mooy waxi xeet ak waasoog ñoomi seen ñu ci bëri ñenn ñi euh, di ci jug ba ñu am kuñ tuumaal ne sax daf leen di jàppal tànk comme ni nga ko waxee sànq ni ñun tamit ñun tas ko xibaar yi ñoo defal propagande waa opposition bi mais yéen tamit am na koo xam ne ni euh, moom lañ ci teg. waaw ma jàmbal nee nañu moo leen di jàppal tànk. ndax mais mais yaa commencé. ah xam nga Sonko wax na fi président Macky Sall bëggul waa Casamance n'aime Casamance. def na fi conférence de presse tudd MFDC. mais yéen itam am nañu. affaire 94 waaye affaire xam nga Sénégal dañoo amnésique yi bi ñu ko njëkkee tudd avant élection yi dañ koy convoqué Sonko dafa dem fële dafa dem Casamance ne dañ ma bëgg a jàpp. am na loo xamante ni c'est pas lui c'est pas Madiambal qui a commencé. mais député ba taxaw na rek di wax tamit. waaw waaw c'est pas Madiambal qui a commencé. ak ku mën a doon muy kii ak ji waxu xeet. waxu waaso waxu divisé waxu xeebaate ak ku ko fi mën a wax ak ku fi mën a wax sénégalais yëpp dañu war dugg def yow li nga war a def ci yow parce que dafa loolu c'est un débat qui est dangereux. amaan na beneen débat boo xamante ne ñu ngi koy soulever mooy wàllum daganal ou lii di euh, borom ñaari tur yi euh, ndax am yéen loolu fi def ci suba gi boo ko defee ci suba gi su ngoonee doo fi yendu d'accord président nee dama ne wax bu fi daganal Euh, kii borom ñaar Touré. loo fi yéen te président wax na ko devant le premier premier ministre. Cap-Vert dafa ndànk rek xam nga yéen li nga xamul nit ñi mooy dafa am lu ñuy wax langage diplomatique ak teraanga sénégalaise. est-ce que loolu war dafa ndànk rek sa gan bu ñëwee dafa am noo koy waxee non. d'accord mais ça moom du président Macky Sall xalaatu ko. ragal gan gi dama ni non dafa am xam nga tamit diplomatie dañ koy jàng président li muy wax. li muy wax li muy tontoo lu ci bëri du moom moo koy bala pare conseil yi mooy ko moo ko ñoo koy jox mooy ne ko terme yi ngay utiliser mu utiliser yooyu mais affaire góor jigéen vraiment Sénégal kii du fi dox. nañ ko teg ci suuf alors Mouhamed coalition bi xanaa boobu ngay jeexale. waaw coalition bi bon fan la toll ak seen. Euh, ni activité mhm. gis nañ fi bëri woon na coow diggante moog Moustapha Diop et tout ça. waaw ñaar ñaari coalition Macky 2012 li toll léegi xam nga kii Moustapha bi mu yeggee nañ koy dàq dafa bëggoon utiliser Macky 2012 euh, def ko comme. arme paravent am arme pour président dañ ko dàq. c' te ça le problème mu coow li la preuve bañ ko dàqee daa bàyyi Macky 2012 dafa démissionné kon moom affaire bi gëm ko woon ñun Macky 2012 ñun dañ ko nekk. parce que man si républicaine modèle euh, parti Maguette Ngom Nida alliance pour la république parti kii euh, euh, nouveau parti Lat Diop DG Rona FEP suñu parti yooyu ñoo njëkk a gayee Macky après après parti Assane Dia aussi je crois donc ñun nous sommes Macky 2012 bañ koy Moussa dafa bëggoon nekk candidat. Hmm. ba mu demee ba loolu sottiwul ci la ñu rejoindre ñu bëri ñu bëri bi ñu demee ba seen seen biir sottiwul lañ ñu fa fekk ñun nous sommes ñun ñun nous sommes Macky 2012 ñun ñoo bind yoonu yokkute xëccewuñu ko ak ak ak ak kenn coordination Macky 2012 aussi man personnellement ne m'intéresse pas amul lu may yokk amul lu may wàññi ce qui m'intéresse mooy développer mon parti Synergie républicaine mais nag Macky 2012 du ñu bàyyi kenn jël ko. franchement di ko xeexee président wala nga jël ko di ko def ay motivation personnelle loolu moom dañ ko dul nangul kenn parce que dañ cee sonn te it histoire la parce que élection présidentielle 2012 Benno Bokk Yaakaar gañu ko Macky 2012 moo ko gañe bulletin ba Macky 2012 moo ci nekk waaw Benno dina la mere non dama ne Macky 2012 moo ci nekk li ma bëggoon aussi wax le président de la République nga xam ne moom mooy président coalition bi parce que le président Macky Sall est à Benno Bokk Yaakaar au titre de Macky 2012 et non pas de la paire. Macky Sall moom moom coalition bi ah moo dox ñëpp seeti leen ku nekk mu nuyu la signé ak yow ay mbir. jot na mu reprendre coalition bi parce que nag ak yi fi xew nii benn bokk yaakaar war nañu ko xoolaat. Hmm. parce que coalition boo xam ne mënoo empêcher crise bu toll nii dañ la war jox ay orientation yu bees lu bëri ci suñu système war nañ ko xoolaat ci trois ans yi des ci ci mandat bi parce que sinon. euh, il faut même ñu opérer même un, un renouvellement de génération dans la coalition parce que devant les Sonko devant les euh, de qui était à Rewmi génération bi c'est les générations de 70 de 80 qui montent. seeni morom mënuñu jël ay génération 50. nag jëlee non pas pas leen fi. ah mais da ngay jël les jeunes et les moins mettre leen au devant. Euh, pas nekk en position stratégique mais l'opérationnel. di xalaat ko lay jox les jeunes les moins. locales yi Benno Bokk Yaakaar la ñu àndal. d'accord mën nañu bañ a ànd. Hmm. te comme Macky 2012 aussi moom mu ñu ko ñoo président ñoo ko bokk. xam nga soo àndee Benno Bokk Yaakaar ñun ñu ànd suñu kii duñu mën a tudd noonu. Hmm. moom du ko jël ñun duñu ko jël. mais Macky 2012 c'est une coalition historique mais nag booy dem local moom euh, affaire nawetaan la. Euh, leer na nañ Mamadou Moustapha Diagne tey di suñu invité ci suñu émission La Voix du Soir mu nekk nag émission boo xamante ne nii dégg ngeen def na ci ay révélation yu bëri wax na ci wàllu njàng njàngale mi laal na wàllu université njàng mu digg doom bi njàng mu suufe mi euh, am na yu bëri yoo xamante ne nii jug na ci rawatina lu soxal wàllu politique politique également wax na ci politique euh, bi nga xamante ne nii jamono ji lu ci bëri bëri am na ci lu soxal nag wàllu coow yi ñu génn récemment avec les derniers affrontements mën nañ ko waxee noonu ñi nga xamante ne nii am nañu sax ñu ci ñàkk seen bakkan ñuy profité ci occasion bi di ci jaale seen i mbokk uh, bu baax a baax a baax alors ba tey ji nag wax na ci lu soxal tamit wàllu diggante yi soxal nag wàllu coalition Macky 2012 ñoom uh, uh, Khalifa Babacar Sall nag kii di Karim Meïssa Wade ak Ousmane Sonko mi nga xamante ne nii fu mu ko fekk du ko raté alors mm-hmm. Mamadou Moustapha Diagne Mouhamed <laughs> maa ngi lay jaajëfal baax looy ree li ma wax ah, li nga wax laay reetaan dina ma tontu xam naa su ma ko joxee mot de fin bi <laughs> looy jeexale en tout cas attaqué leen donc merci merci beaucoup la presse sax attaqué nañu. non non ñëpp bi muy toog la may déclaré la guerre. c'est vraiment un plaisir de le recevoir aujourd'hui sur euh, la mu nekk mbégte ji bi vraiment kontaan itam ci plateau bi di ñaan euh, semaine di ñëw dàq yi ñu nekk yàlla nangul ñu suñu koor. et puis on vous rendez-vous euh, lundi prochain incha allah et puis pour comme chaque lundi ñu ngi ànd ak professeur Cheikh Oumar Diagne incha allah. Hmm, mercredi maa ngi dégg. waaw yi nga bëgg a indi. ñoom Pape Faye ak kan parce que foog ñu wax si. Ibrahima Soppe waaw sketch yi dina ci baax. baax incha allah il y a beaucoup de choses à dire parce que li euh, ñuy transversé daal war nañ ci wax bu baax bu hmm. baax daal. kon vendredi da nga may dencal invité vendredi. comme que tey jii euh, laal nañ éducation plus euh, politique alors euh, directeur ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax moo de la fin rek nga jeexale ko. waaw di leen féliciter rek bon j'aime bien ce plateau là. Merci. et puis la jeunesse là aussi euh, bien parce que le discours du am langue de bois. Hmm. donc on parle y a ñu war a wax. <laughs> mais aussi gis naa gis naa fi aussi. Euh, donc suma suma suma sama sama sama àndandoo bu baax. sama compagnon <laughs> muy euh, donc euh, mu ñoxo di jaay ñoxo baax. Ah, waaw moom. moom mooy suñu maam. waaw moom sama mag jar naa bàyyi ci réew ñu koy ñaan gudd fan bu baax man moom su suñuy maam la woon ba ah, ah allah donc ñu ñu ànd gis naa ko ma kontaan trop mm-hmm. Mm-hmm. di leen encouragé donc ngeen persévérer dans ce sens là ñun aussi lu ñu ci mën rek daan ci daan ci jàpp incha allah pour ngeen dem waaw ah. mais nag da ngeen di tëdd njaaxanaay rek. ah non ba tey ñu ngi ñu ngi ñu ngi jaaxaan. waaw xam nga presse bi du du yaakaar ne pour nga nekk un bon journaliste. faaw nga nekk faaw nga tiir ci état euh, euh, c'est pas bien le rôle de la presse n'est pas de prendre mm-hmm, parti. effectivement vraiment mm-hmm. waaw. bu opposition bi ñëwee da koy contrer bu état bi ñëwee nga contrer. loolu moo waral sax euh, Equivox TV. di dañuy équilibrer lépp loo xamante ne ni soxal na nag wàllu baat yi fiy jóge alors euh, di nekk nag comme ni ñu ko waxee rek képp ko amul baat ñu may la baat tamit pour nga mën a wax waaye tamit dinañu teg ñi nga xamante ne ni ñoom ñii ñoom ñi yor yenn ci ay ndombal fii ci réew mi gën a waxtaane ñoom li gën a soxal mi les l'actualité de l'heure de l'heure lépp loo xamante ne ni euh, dina askan wi nit ñi tamit bëgg ci xam ay leeral dinañ leen fi indi wax ak ñoom ci la voix du soir alors c'est comme euh, chaque soir nag lundi mercredi ak vendredi ñu leen di jox rendez-vous lundi incha allah pour un autre nu ko mën a waxee sax beneen émission wala beneen numéro ànd ceeg nag comme ni mu ko annoncé professeur euh, Cheikh Oumar Diagne euh, ngir waxtaanee lu soxal nag wàllu réew mi mais mesdames messieurs. mu ngi wax euh, affaire franc-maçon yi. waaw moom la de yaa ngi koy xaar. yaa ngi koy xaarandi. non souvent day wax ci affaire franc-maçon yi. sa <laughs> di ñëw sax ci loolu lañ bëgg a waxtaanee wàllu franc-maçonnerie ak li nga xam te ne nii nee na nag. il est nous attaquer c'est clair. mais non non non souvent dama koy gis mu wax ci affaire c'est bien d'accord c'est ça parce que les gens de. de ñu gën a xam de savoir quoi. moo tax loolu la ñu bëgg a xamee loolu la ñu bëgg a waxtaanee bii di ñëw m messieurs rendez-vous donc sur Equivox TV votre télévision à portée m main mais d'ici là restez et à lundi, Inch'Allah.